Everywhere.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 Ndour ak corom suy wuyoo ci turu SD di jaay ca marché Grand Médine lañu fa teg loxo co te nag loolu mu ngi am gannaaw ab opération de sécurisation bu élément commissaire Thierno Diop yi doon def ci noonu lañu suspecté ab waay bu nekkoon ci ab moto ci lañ ko arrêté bi ñu ko vérifié lañ ko fekkee ak quatorze cornetu amba su xeet mu xeet te flig yi bi daawur di génnee ci kër gi lañ ko gis moo taxit biñ ko tegee loxo ba noppi dañ ko delloowaat fiñ ko jëlee woon pour xool fan la jëlee yàmbaa jooju biñ ko yóbboo ba ci kër gi mu génnee woon ci lañ fa fekkee as corom di wuyoo ci turu SD bi ñu fiyootee biir néegu corom si fekk nañ fa quatre-vingt-cinq kornetu yàmba ëpp tëlëw rajax ma ne ak poset bu def cinquante-quatre mille francs taawur plombier nag nangu na ne mooy borom yàmbaa ji <laughs> ma ne ko nag munoon ngaa yem ci sa plombier ji de waaye nag setal na corom si di sd ba mu set wecc ndax nee na taqeewu ci laalewu ci moom ci boppam feneen la doon jëlee yamba ji laaj bi nag mooy lu tax ñu fekk yamba ci néegu corom si looloo jara laaj nag sd mi di coro daawul premier astaxfurulaa daawul yamba nee na mësul xam ne daawur day jaay yamba yaa ngi rasu de moo taxit ma baamtuwaat ko waa moom lu tax ñu fekk ci biir néegam quatre-vingt-cinq cornetu yamba hmm. mbir mi doy na war fi mu ne ñoom ñaar ñëpp yoon teg na leen loxo ba defeere leen ci wàllum yore ak jaayum yamba cey yamba ñi mu yàq seen àdduna bari na moo tax ma ne jàngoro ji dal réew mi moo gën a graaw korona la wax la xew ca Rufisque doy na war ab waay moo fa tukki woon dem Mali bi mu dellu see la fekk jabaram ab waay ëmbal ko ba noppi takk ko oh pëtëlaw waa mu ngi wuyoo turu afay waa ji demoon Mali Mali am fa neuf mois bi mu dellu see à sa grande surprise ci la fekkee jabaram ji di acandum ëmb ba noppi di sëy ak beneen waay bu ñu naan deeloo te deeloo moomu ci ginnaawam la ëmbalee ndaw si ba noppi daa di koy takk <laughs> ma ne loolu de xanaa mooy ku ñu reer sa ginnaaw ëmbal jabaru jàmbur ba noppi takk ko may laaj nag sëy boobu ban imaam moo ko takkoon ak ñan ñoo ca nekkoon ay seede looloo jara laaj nag ma ne leen rek a mën a am soit que dañ leen a fen waxuñu leen dëgg wala ñu doon ay nit yu ñeme yàlla acandum nag di jabaru waa ji tukki woon nee na yàgg na ko ñaan baat waa ji te ticc ne du ko may baat <laughs> waaw loolu tax na nag nga dem asaaloo sa bopp nee na ci kaw loolu bi waa ji demee tukki dem Mali ci la bëggante ak deeloo gaaw na waay ñoom ñaar ñu nekk ca ba deeloo daa di koy ëmbal mujjee koo takk ëskëy mbir mi nag ñu ngi ko doon attee ci tribunal bu Rufisque ba yoon mujj daan a candum ak deeloo daa di leen amande téeméeri junni cey mim réew lu ne nga ciy dégg de moo tax ma ne jàngoro ji dal réew mi moo gën a graaw korona la wax la xew ca doy na waar waay waay tonton tubaab mi ye bon tonton tubaab nag mu ngi wuyoo ci turu Hermenguez di ab ressortissant français nekkoon fële ca Louga gérer ab association bu bu ñu naan association en faveur des enfants de la rue <laughs> kii ko doon sàkketoo rek ma ne Hermengues moomu dañ ko teg loxo ci wàllum pédophilie un ne ma ne waa ji ci taw yu métti fi amoon 2019 ci la tonton tubaab tàmbale doon héberger xale taalibe yi biir këram doon bu boonee munu la gis xale yooyu di fanaan ci mbedd mi <laughs> yàkkataankat la ci la jëlee këram googu nag daa koy transformé di fa fat xale yi taalibe yi ñu fay fanaan waa xale yi taalibe yi moom ana seen sëriñ cey mim réew ma ne ba waa koñ ba mu dëkkal ñoo mujj dajaloo ne ko bàyyil xale yi ngay fat ci sa kër ñu fay fanaan tonton tubaab daa di lank ba tëdd ci naaj bi ne du bàyyi xale yi muy fanaanal ci biir këram waaye kii yët dam fit loolu mujj créé ay suspicion yu bari ci quartier bi mu dëkkoon ba borom kër gi ko liyoon daa di koy génne waaw moo gën a wóor de waaye sawaay bàyyiwul tonton tubaab dafa dem loger feneen continuer di fat yi taalibe yi ci biir këram loolu gën a yokk suspicion yi tuuma yi di gën a bëri ci moom ci koñ bi ci wàllum pédophilie ba commissariat bu police bu Louga daal di ci jot ci la commissaire ordonné ay élément ñuy contrôler nag tonton tubaab waa jar na ko nag ba 24 décembre bi weesu ci la tonto tubaab daanu ñaw ndax flic yi dañoo gis ab xale taalibe génnee ci këram di jooy ci la ñu xale bi jooy daa di koy laaj lan lay jooy xale bi daa di leen expliquer ne tonton tubaab moo ko doon tëddee ci la police demee kër tonton tubaab fekk fa ñaar fukki xale ak ñett ñi toog ñii tëdd ci ay madla waa may laaj xale yi ana seen sëriñ ak seeni wayjur waay loolu nag moo jara laaj tonton tubaab nag yoon mujj na koo teg loxo ci wàllum fat ay xale te amu ci benn ndigal hmm, ma ne nag réew mi moom day xëy rek tas xale yi ñuy sacrifier ci mbedd mi moo doy waar bàyyi leen ak prédateurs yu mel nii ñu bëri ñu ngi fi di mbubboo ay turu association fekk dañuy ruube xale yi yi leen seeni doom mu doonoon seen xibaaru buzz dig daje samedi ci yeneen xibaaru buzz